taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu. fanweereelu njàngale mi ak benn. lan la nit ki mën a def ba mucc. nanu bamtu nettali yi weesu. benn su yàlla xamee bàkkaari nit ñi ci nettali yi kon ndax nun yàlla xam na sunuy bàkkaar. waaw ñaar su leen yàlla attee ñoom kon ndax yàlla dinañu atte ñun waaw ñett suñu muccul ñoom ci atteb yàlla ndax nun dinañ ci mucc déedéet ñeent ndax yaa ngi topp yàlla foo tollu juróom ndax dingay mooy yàlla waaw juróom ndax am nga kóllëre ak yàlla déedéet mbind mu sell mi nee na ci rom saar juróom aaya fukk ak ñaar kon nag bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ndaxte ñépp a bàkkaar saak saar ñaar aaya fukk ndaxte ku sàmm yoon wépp waaye xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wépp rom saar ñett aaya fukk ku jub amul du kenn sax rom saar juróom benn ay ñaar fukk ak ñett ndaxte peyu bàkkaar mooy de yawut yi saar fukk ay ñeent ndaxte deretu yëkk yi ak ju siket yi mënuñu dindi bakkaar yi yawut yi saar fukk ay benn yoonu musaa dafa misaal xéwal yi waroon a ñëw takkandeer la ci yëf yu dëggu yi waaye du ñoom ci seen bopp looloo tax mënul yeggale ci mat gi ñu ñëw ci yàlla ndaxte at mu nekk duñu jóg ci jébbal yàlla sarax yooyu yawut yi saar juróom-ñeent aaya ñaar fukk juróom-ñaar kon ni nit ñi deewee benn yoon rek ba noppi jaar ci àtte ba ni ko yàlla dogale peñu bi saar ñaar fukk aya fukk ak juróom képp ku ñu bindul sa tur ci téereb dund bi des nala la sànni ci déggu safara si bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi lan la nit ki mën a def ba mucc nettali bi mu ngi aju ci li nit ki mën a def ba mucc nu fàttaliku li nu jàng ci nettali yonent yi gannaaw loolu dinañu jàng li yàlla wax ci linjil kan mooy bàkkaarkat ñu fàttaliku ne jàng nañu ci mbirum aadama ak awa ak seen bàkkaar nit ñëpp ci àddina seti aadama ak awa lañu bi aadama bàkkaaree kóllëreem ak yàlla tas na su ab sëtu aadama juddoo du seq kóllëre ak yàlla kon bàkkaarkat la nit ñëpp bakkaarkat lañu nit ñëpp sëti aadama lañu te ñoom ñëpp bakkaarkat lañu mbind mu sell mi nee na kon nag bakkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daal di law ci nit ñëpp ndaxte ñëpp bakkaar nun ñëpp bakkaarkat lañu ndaxte nit ki jëkk di aadama bakkaarkat la mbind mu sell mi nee na ñëpp bakkaar ba joteetuñu ndamu yàlla ku jub amul du kenn sax lan mooy atte bàkkaar mbind mu sell mi nee na ndaxte peyu mooy dee nit ñëpp bàkkaarkat lañu kon dinañu dee fàttaliku leen ne yàlla wax na aadama ak awa ne dinañu dee suñu bàkkaaree dee bokk na ci atte bàkkaar waaye atte bàkkaar weesu na dee mbind mu sell mi nee na kon ni nit ñi deeyee benn yoon rek ba noppi jaar ci atte ba ni ko yàlla dogale bu dee weesoo atte moo ci topp atte bi dina doon mbugal mbind mu sell mi nee na képp ku ñu bindul sa tur ci téereb dund bi des na la sànni ci déggu safara si atte bàkkaar lii la dee tàbb ci déggu safara si te teqali ko ak yàlla ba faaw ndax topp fukki ndigali mën a tax nit ki mucc waa Israël ak nu seen mbaax mënoon a toll ndax mënoon nañu ko feye seen bakkaar déedéet ndax sunu mbaax nun mën na fay sunu bakkaar déedéet ndax waa Israël juwoo woon nañu ak yàlla ndax li ñu toppoon fukki ndigali yàlla yi déedéet ndax mën nañu mucc suñ toppee fukki ndigal yàlla yi déedéet mbind mu sell mi nee na ndaxte ku sàmm yoon wépp waaye xëtt ci leen ndigal rek jàdd nga yoon wépp soo toppee ndigal yépp ba mu des benn ndigal rek bàkkaarkat nga te dinañ la àtte ni ku topp yàlla amul benn doomu aadama bu mën a topp ndigal yàlla yi bés bu nekk giiru dundam yàlla mësul wax ne suñu toppee ndigal yi dinañu baal sunu bàkkaar yàlla xam na ne mënuñu topp ndigal yépp lan mooy njëriñu ndigali yàlla yi ndax yàlla dafa jox ndigal yi waa Israël ngir ñu jub te mucc ci àtte ba déedéet déglu leen li yàlla wax ci mbirum njëriñu ndigal yi ndigal yi dañuy won nit ñi seeni bàkkaar mbind mu sell mi nee na waaw kon yoonu Musaa wi luy njëriñam dañu ko wàcceel nit ñi ngir seen jàdd yoon ne fang looloonu wàllu yoon wi ba karaaset biy ñëw moom mi ñu digoon dig bi mbind mu sell mi nee na kon nag lu nu war a wax ndax bàkkaar ci yoonu Musaa la jóge mukk waaye moo ma luy bàkkaar mbind mu sell mi nee na ndaxte sàmm yoon wi taxul kenn jub ci kanamu yàlla solom ndigal yi daal mooy wone bàkkaar mbind mu sell mi dafa leer njëriñu ndigal yi moo doon won nit ñi seeni bàkkaar mbind mu sell mi nee na ci noonu lanu yoon wi doon nootee ba kirist di ñëw ngir yàlla àtte nu jub ci kaw ngëm topp ndigal yi mënul tax nit ki jub topp ndigal yi mënul jubale nit ak yàlla topp ndigal yi mënul fay bàkkaaru nit waaye ndigal yi ñu ngi won ne tooñkat lañu ak i bàkkaarkat ci kanamu yàlla ndax mën nañu saraxe ay mala batax yàlla baal nu ndax mala yi waa Israël yi saraxe mënoon nañu fay seeni bàkkaar déedéet ndax tuur deretu mala mën na tax yàlla baal na sunuy bàkkaar déedéet mbind mu sell mi nee na ndaxte deretu yëkk yi ak ju siket yi mënuñu dindi bàkkaar yi mbind mu sell bi nee na yoonu musaa wi dafa misaal xéewal wi waroon a ñëw takkandeer la ci yëf yu dëgg yi waaye du ñoom ci seen bopp looloo tax mënula yeggale ci mat gi ñi ñëw ci yàlla ndaxte at mu nekk duñ jóg ci jébbal yàlla sarax yooyu mbind mu sell mi dafa leer sarax ay mala ak tuur deretu xar wala jubéy mënul fay bàkkaaru nit sarax yooyu doyuñu yàlla sarax yooyu matuñu ci kanam yàlla yàlla xeb na sarax yooyu mënuñu def ba nit ki jub ci kanamu yàlla fii la nettali bi yem am na ay laaj benn ndax bàkkaarkat nga waaw nit ñëpp bàkkaarkat lañu ñaar mbugalu bàkkaar lan la dee tàbbi ci déggu safara si te teqali ko ak yàlla ba faw ñett ndax mën nañu mucc suñu toppee fukki ndigali yàlla yi déedéet amul benn doomu aadama bu mën a topp ndigali yàlla yi bés bu nekk giiru dundam yàlla mësul wax ne suñu toppee ndigal yi dinañu baal suñu bàkkaar ñeent lan mooy njëriñu ndigali yàlla yi njëriñu ndigal yi moo doon won nit ñi seeni bàkkaar juróom ndax tuur deretu mala mën na tax yàlla baal nu sunuy bàkkaar déedéet saraxe ay mala ak tuur deretu xar wala jubbéy mënul fay bàkkaaru nit juróom benn ndax nit mën na def yëf yu baax ba mu far ay bàkkaaram déedéet jëfi yu baax mënuñu far ay bàkkaaram yàlla dafa sell moo tax du nangu benn bàkkaar lu mu tuuti tuuti juróom ñaar naka ngay feye say bàkkaar mënuloo fayal sa bopp say bàkkaar juróom-ñett léegi nag ndax danoo war xaar ba dee yàlla daanu ndax am na yoon wu nu mën a jaar ba mucc ci mbugalu yàlla dinañu waxtaan ci mbir moomu ci kanam juróom-ñeent lan la nu mën a def ba yàlla baal nu sunuy bàkkaar nañu ne peyoru bàkkaar mooy de sarax bu amul bàkkaar rek moo mën a fay sunuy bàkkaar fukk ci sa xalaat kan mooy bind sa tur ci téereb dund gi maanaam kan mooy mucc bu nu fayee say bàkkaar dinga am kóllëre ak yàlla te dinañu bind sa tur ci téereb dund gi yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla bëggul bàkkaar doomi adama yépp bàkkaarkat lañu yàlla dina àtte bakar yépp kenn du ci mucc peyooru bàkkaar mooy dee tàbbi ci déggu safara si te teqali ko ak yàlla ba faaw beneen yoon dinañu waxtaan ci mbiru bi malaaka ma feeñoo sakariya